gërëmaat une fois encore Serigne Mohamed Thiaré borom jaaro yi numéro téléphone ngi noonu 77 335 14 14 di nit ku yàlla baaxal yàlla na yàlla dafa jàmm leen dina la may jaaro yéen kenn ku nekk waaw loolu moo xaw dina la may jaaro. bismillahi rahmaani rahim secret bi ñuy fas yéene ànd ak yéen secret la boo xam ne bokk na ci li ko tax a jóg mooy wàllu wërsëg wàllum ubbeeku wàllum. alal incha allahu taala su ngeen ñu toppee ñu leeral leen nees koy jëfandikoo ci kàttanu yàlla ñoo ngi ndokkeel ñëpp ci guddi gu mag gu tedd gi nga xam ne moom la ñu jógee doon ko màggal muy laylatul isra wal mi'raj di bis boo xam ne itam doon nañ ci fàttaliku gën ak jamono cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke radiyallahu anhu wa nafaxna bi barakaatihi amin kon ginnaaw loolu mbokk yi yal nañu yàlla nangul lépp luñ ci ñaan te jaamu ko ci yàlla te may nu yàgg koo tewee at yu baree baree bëri ànd ak wër ak wër la ci barke alxuraan ñi ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu nuyu bu ñu yàlla boole tey am yaakaar ne di ngeen ñu fay nuyoo ndax nuyoo moom dañ ko sopp lool waaye nag fay nuyoo farata la ci jullit bi mooy la alxuraan di wax ne wa iza xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw rubbuha kon maa ngi xaar seeni commentaire ci ngeen delloo ma sama nuyoo incha allah ndax ñaanalante la rek su ma leen ñaanalee tam damay bëgg yéen tam ngeen ñaanal ma ñun ñëpp yàlla boole ñu nangul suñuy ñaan secret bi nag mi nii saa yoo jullee suba ba noppi jàngal aaya bu tedd bii may bëgg a wax maa yaftaxillaahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa maa yumsik fala mursila lahu min baxdihi wala azizul xakim ma ci sooratu fatir deuxième aaya bi wala troisième aaya bi def naa deuxième aaya bi la maa yaftahi llaahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha wa maa yumsik fala mursila lahu min baxdihi wa huwa al-azizul hakim nga jàng ko ña maanaam juróom-ñaar yoon sept fois boo noppee nga teg ci salaatul ibrahimiya salaatul ibrahimiya moom mën nga koo jàng juróom-ñaar yoon incha allahu taala boo noppee nag nga ñaan sa soxla te diko def manam suba bu jot bo julé ba nopi nga jang ay bobu juróom ñaar yoon def salatu ibrahima salatu ibrahim ya nga jang ko juróom-ñaari yoon boole ko ñaan bobu gëna boko ko jàngee ñaar yoon nga ñaan sa soxla tufli ko te xey sabab lu ji sala nga xol ni say mbir di jege ci kàttanu yalla ñu ngi leen di sant te di leen gëm te ñaan yalla mu nangul ñu lepp inshallah allah ngeen jëf